comment ça va rek. sant macha allah alhamdulilah. bien alhamdulilah. ok topic bi tey xam nga ci lan lañ ko bëgg a waxtaanee d'habitude dañuy jël benn partie son wala benn euh, mot bu ñu dérivé ci vocabulaire bi hip hop yi wala genre. ok tey dañu bëgg a mettre l'accent sur les talents de Xuman les capacités de Xuman hmm. à personnifier de temps en temps à faire des ironies euh, ci woyam nañ ko depuis back in the days ba tey jii originalité écriture mooy xumaan buy bind tey mun na euh, bëgg a wax leneen mais daf koy ironiser wala mu def benn personnification ci utiliser par exemple gis nañ lu mel ni euh, Tony ak euh, Fifi fan yi yëpp ñu ngi doon jokka sante ak bi di dagg sante di tongoog tafante dëkk si xasante lu ëpp tuuru moo taxi tey ji foog ñamante gis nañ lu mel ni yaa tey bu la neex fan bu la neex fan yaa tey. seet naa ba seet ba seet ba seetaat bu baax wante. góor gi waaw yaa tey ku la neex fal ku la neex folli. yaa tey lu la neex def lu la neex bàyyi. yaa tey. yoo xamante ne nii ay kii la loolu la ñu bëggoon rek nga indi ay quelques éclairages parce que nit ñi soxla nañ xam euh, loolu d'abord à quoi ça consiste. bon déjà avant toute chose dama ni koo xamante ne j'aime bien le cinéma j'aime bien. la lecture dama lay koo xam ne j'aime bien beaucoup j'aime bien lire cinéma seetaan ay film ay série tout ça donc man sama gis-gis booy bind benn morceau tu as plusieurs options booy bind morceau mi ngi mel ne en fait da ngay créer film da ngay créer benn affaire da ngay créer événement wala nga créer loo xamante ne on peut le mettre en image nga créer ay images yoo xamante ne ku gëmm sax dina ko mën a gis donc pendant longtemps j'ai essayé de en tout en tout cas selon le, le thème du morceau jéem a def yoo xamante ne est des c' entre entre parenthèses des des scénarios soo xoolee ay morceaux yu mel ne Njobor ay morceaux yu mel ne euh, bëre bu keeg mbaam ay morceaux yu mel ne par exemple comme ak ak Baye Souley dans le temps Fifi xaata la ay morceaux yu mel ne Koti Koti Yoli Yoli donc chaque fois j'essaie de raconter des histoires de raconter des histoires d'une manière assez ironique mais au fait chaque fois que l'histoire est racontée il y a quelque chose qu'il y a derrière c'est-à-dire que ce n'est pas c'est c'est des choses yoo xamante ne chaque fois da nga de niveau de lecture bi nga mooy la première le premier deuxième niveau de lecture boo xamante ne ça parle de la violence mais je me suis dit su ma fekkente je veux parler de violence conjugale maanaam euh, jëkkër ak jabar ci biir kër bi xeex te sóoraale wu ñu xale yi xale yi su ma ko waxee noonu noonu buy boo amee jëkk euh, jabar waroo ko dóor waroo ko doraxal da nga ko war xam nga euh, waxtaan ak moom et cetera xëy na su ma ko waxee noonu day yomb dama pare du nekk loo xamante ne dina mun a des ci xelu nit ñi donc il fallait trouver benn histoire wëlbati ko de sorte que ne mu am benn histoire ci ginnaaw de sorte que tamit fin wu film bi comme film rek chaque fois soo xoolee ci film ci fin bi la la moom da ngay créer suspense ba si fin bi waaye mel na ne jonee ngi waaj a song sànni dank fanaanal fii fi fente ah. kurpoñ bu romb mu profité war ko ndomb bëggaa def benn voyage ah. mais non dafa naroon a yomb si dëgg-dëgg fi fi mii de du mbarum ñala xaan cër nangu ma la moo raw saxapoo lax jaan rocceeku na waaye mi ngi nii di dellu ginnaaw song bi ko Ablaye song moo ko jëlee kaw bi fi dawul de dafa wuti doole ca waañ wa mi ngi menacé Ablaye naan ko mbokku amateur yi fi fee ngi génn gàddu kuuru roof Ablaye bopp bëgg a yokk ngi marche en ngi marche en arrière si lab ja nag faf àgg na teer nee na jogaat fi xajaat mu toogaat tegal kuur gi gi rek xool tegal gi yaay baal ko du ko defati boo xoolee benn morceau bu mel ni Adja Maana j'ai voulu faire un morceau boo xamante ne c'est morceau facile à capter le refrain il est catchy la musique yomb na tamit boo xamante ne ñëpp mun nañ ko mun nañ ko way mais day am histoire ci ginnaaw donc da ngay wax leen loo xamante ne ci ni nga koy waxee euh, am na ñu bëri ñu identifier sax ñu xam si seen entourage benn Adja Maana at least au moins ku nekk xam na kenn koo xamante dafa am genre attitude yooyu ci ginnaaw loolu mooy ñi ngi jamono boo xamante ne ñi ngi jamono 3 point 0 ñi ngi internet ñi ngi Facebook Twitter ñi ngi Instagram am na ñu bëri ndeysaan ñoo xam ne ñi ngi koy a découvrir man gis naa nit ñoo xamante ne mënuñu lire mënuñu bind waaye am nañu Facebook lu ñu def Facebook fos posté photo ak like comprendre nga yenn saa yi nag da ngay def loo xamante ne fii ak fukki at fii ak ñaar na la topp donc ay détails la yoo xamante ne si biir message bi nga si biir morceau bi nga koy dugal sans pour nga jaar si digg bi ku nekk dina si mun a gis boppam donc chaque en tout cas expliquer benn histoire histoire boo xamante ne day am ñaari sens sens réel bi sens bi nga xam moom ngay dégg ak beneen sens caché donc léegi nag après le faire de manière assez humoristique parce que je me dis qu'avec l'humour tu peux faire passer beaucoup beaucoup de choses lu bëri na mun a jàll sans pour autant nit ñi mer ci quoi. ñu seetluwaale sax lu ci mel ni euh, ay célébrités yu mel ni Balla Gaye def na ci ay mm. ni ay en fait euh, man dama ni koo xamante ne déjà souvent moo di woo Sa Ndiogou di ko toj j'aime bien tout ce qui est genre humour bu ma neex euh, benn humour boo xamante ne c'est pas forcément humour boo xamante ne da ngay euh, déguisé wu mais xam nga humour bu ma daaxal mooy humour boo xam ci ni ngay comprendre ci ñi ngay construire phrase yi ndeysaan am na benn jëm si yàlla bu ma neexoon ci ni mu doon bindee moo doon Dame il avait une manière d'écrire les choses yoo xamante ni mu ko doon bindee dafa doon rafet da doon reetaanlu man j'aime bien ce genre d'humour bi ñuy def euh, journal rappelé bi man ak Keyti première saison bi on a fait le truc amul woon ay parodie amul woon dara si deuxième saison bi ñu ne il ñu am lu bees lu ñu indaale léegi lu bees lu indaale mooy lan euh, dañuy wax loo xamante ne réalité la mais soo ko waxee dañuy rab morceau yi mun nañ ko rab lépp li nga gis lu ñu woy yëpp mun nañ ko rab nest noo xamante ne si la affaire bi li ëpp importance di ëpp porte na yaatu mooy lan nga jël benn morceau bu ñëpp xam nga jël ko nga wëlbati parole yi nga def ci leneen loo xamante ne di nga wax sa soxla waaye ni nga koy waxee day différent parce que Sénégal xam nga yàgg nañu jël woyu jàmbur soppi ko depuis jamono yi ay je sais pas ay kasaaf morceau bu génn soppi nañ ko xale yi si mbedd mi Pharrell Williams exactly donc pour man loolu dafa nekk loo xamante ne da ngay euh, benn benn manière la boo xamante ne di ko mun a benn style style boo xamante ne day permettre sa message gën a am porte bu gën a yaatu aja <laughs> dafa nice jekk mel ne disquette bëgg sol lu gàtt bëgg nu roog minette bëgg greffage cheveux naturel petite tête bëgg guddi bu nekk mu dem discothèque bokk ci buzz bi nekk internet fës fës Dakar seen ko seen web amul benn talent waaye bëgg nekk ba det bëgg bëgg taaram lay wute weccet <laughs> Adja maanaam dégg maa ngi dégg si waxam mu ne dafa bëgg a humour te itam dafay feeñ bu baax si ay ah, si ay bagages am mais au delà ay message yu fort lay lay lay véhiculer. bu Pire France. Mhm. gën man xumaan. gën man xumaan tas Matar Fall ah. <laughs> Matar Fall waaw yee. ñu ngi lay ziar bu wér focus ak bi booy wala bii grand. waaw mi ngi noonu ah. xam nga euh, mooy comme ni ñu ko waxtaanee rek ci biir. Euh, dañu toog def benn analyse seetlu. wala boog daf benn taxaw seetlu rek depuis euh, temps yi ñu yi ma sama maam daan yónni kenkaari Diop Koppe waa géej waa yëpp xam nañ ko ñu ngi leen di béggee bu baax a baax vraiment <laughs> euh, ba euh, ba ma amee entrée en sixième ñu mayoon ma benn Walkman mooy mm. Walkman rouge noir yooyu mm. daf ñu ne ma boo amee entrée en sixième sama maam may dig ma velo sama maam mbas la dig ma Walkman yaakaar naa ñu jëndal ma Walkman bi kasetu Pink Floyd génn kat waax xam nga back in the days quoi léegi ba tey jii nii. Mhm. da ngay mën a toog def benn rétrospection xoolaat def analyse artiste artiste mel ni xumaan ak tant d' artistes yoo xamante ñu ngi ci réew mi. Mhm. da gis ne le bi bien qu'il a tant d' autres talents d' tant d' autres capacités ak yeneen faculté mhm. mais ñu seetlu ne kii. il a cette particularité quoi ci plume mooy dina ironiser dina personnifier. dina dina dina dina des fois sax def comédie. pour faire passer un message. waa xam nga léegi nag. lu ci mel ni làmb ji. Mm. moom lu na ko mu ngi doon traité violence conjugale. Mm. mais doo sit doo comprendre. Ah voilà fin bi ngay comprendre xale bi ne yaay baal ko du ko defati. Mm-hmm. xam nga xale bu ñëwee bay àtte xeex papa ak yaay. c'est dangereux. kon loolu maanaam war na daw yaram. ok euh, c' est ça le message que je en fait. ok ok ok. nga wax ji ko fekkee. dama bëgg nga prêter sa attention. ba pare ci ci ci ci dañoo jël dañoo jël làmb. comme mhm. Sénégal dañoo bëgg làmb. Mhm. ma ne xaaral ma jël làmb. li nga mhm. xamante ne xam nga dañuy duñ duñ ko tey ah, mais dañuy jël ay culture yoo xamante ne dañuy dañuy def ci boppu xale yi par exemple. ne xeex lu baax la. làmb loolu lay promouvoir. parce que dañuy wane ay guerrier xam nga bu njëkkoon jamonoy Rome mhm. dañ doon ne il faut donner au peuple du pain mhm. Mhm. pour fàtteloo leen seen problème du pain et des jeux mooy nañu lekk nañu lekk ba suur naan ba màndi dem euh, arène ba pour mun a bégee donc une fois que nga am ñetti yooyu rek ça veut dire que peuple bi du fàtt day fàtte lépp jamono bi ñu nekk nii nag boo xoolee làmb dafa nekk loo xam ne dafa am doole Sénégal dafa am doole boo xamante ne euh, bon c'est un jeu c'est un divertissement mais dafa am beneen effet pervers. Mhm. effet pervers bi mooy maanaam xale yi dañuy màgg ak mhm. benn genre culture de la violence. bon am na. munoo si dara munoo pour appuyer parce que on respecte. on respecte vraiment parce que man Balla Gaye suma lutteur la. Mm. Aliou ay Aliou say junior sama koñ boo yëpp samay mbër lañ. xam nga li mais. sentir quelque part. Mm. nit ñi dañuy xaw a mel lu gën a sadik. combat bu am nàcc lañ naan dafa <laughs> neex. xam nga loolu dafa doy waar billaahi ñun ñu ngi ci hip ñu ngi ci milieu urbain envié wuñ dara làmb yi ñun suñu bopp ñun rappeurs yi ñun mm. ay fan mbër yi lañ mm. parce que am nañ benn euh, mbërkat boo xam ne nii moom ñu représenté ci euh, làmb bi muy mm. Zos. mais ci beneen angle. da ngay gis ne nit yi. combat yi ñuy seetaan bu ñu jàppee gain bi dëkk fël ko mu daanu. combat boobu neexul ko mm. combat bi neex mooy bu ñu dóorante deet génn. mais loolu amateurs waaw xam nga. mais boo xoolee tamit dafa nekk loo xamante ne boo xoolee la moo tax ma. bëre bu keeg mbaam. ma ne dañu jël làmb. Mhm. ñu jël kër gi def ko arène. Mhm. ñu jël euh, ñaari mbër yi jëkkër ak jabar def leen euh, ñaari lutteurs yi. mais kër gi loca kër locataire la wala kër gi xaw a jaxasoo noonu léegi ñu jël leen ñoom ñaar ñëpp nga teg leen ci digg cour bi mhm. mu nekk bi ma bi ma nekkee face amoon nañu ay histoire yu mel noonu ci koñ bi mhm. ay jëkkër ak jabar yoo xam yenn saa yi doon jàppante mais mhm. bon c'était pas exactement la même histoire mais avec le temps ak avec un peu d'imagination rek affaire mun nga koo scénariser donc léegi histoire bi mooy lan histoire bi dëggantaan mooy Euh, euh, fin wu film bi. Mhm. mooy fii xale bi di ñëw di àtte xeex bi. loolu mooy loolu mooy film bi. nga àgg foofu il faut nga am foo commencé léegi yow ñun fin fin bi laa njëkk a bind. Mhm. avant mais bind commencement bi. donc da bind fin bi li nga xamante ne moom mooy chute bi. Mhm. après léegi nga commencé yéeg ci di yéeg di yéeg ba finalement wane tamit. négativité bi nga xamante ne moom moo am diggante cest bu ñu bu li ñuy li li ñuy pare di faral di wax rek euh, sa sa soxna da ko war di doxaan chaque jour. ah bon waroo xaar ba si bien ah sûr. ah bon da nga war di labat chaque jour. waroo xaar <laughs> waroo xaar ba ngeen marié wu nii rek. boo leen ba marié xam nga da ngay da ngay ne ah, li ma am am naa ko bëri. Mm-hmm, mm-hmm. bon bref bëre bu keeg mbaam histoire boobu boo xoolee même ci histoire bi li bi ma ko commencé bind première version titre bi bëre bu keeg mbaam politique la woon jamono jooju mi ngi amoon problème diggante Idrissa Seck. ak Ablaye Wade si laa commencé woon bi neexoon ma ne non lii fa mu bind si benn morceau Seydina Insa laay la hmm, ma jël morceau bi commencé ko bind hmm. après ma bàyyi des années plus tard ma ne non bon on va comme chaque fois damay wax ci politique bàyyi ma jéem a xool beneen sujet boo xam ne day gën a nekk sujet bu bu bu sujet bu social hmm. donc violence conjugale c'est rare nga dégg ñu ci bind parce que bof du ñu xalaatuñu ne c'est c'est important mais xale bi lépp lu xew ci këram day répercuté wu ci Euh, ci éducation. day répercuté wu école day répercuté wu ci comportement. parce que dafa sensible. dafa xale bu ndaw boo xam ne day gis yaayam chaque fois papaam di ko dóor di ko ngàdd day màgg lool day répercuté wu si. comportement bi muy mhm. mais suñ ko mhm. bindee woon noonu comme ni ma ko waxee ci reportage bi. Mhm. peut-être que ni du du am sens bi ma ko li ma li ma soxla day évident merci léegi fallait créer benn affaire bu artistique autour de mhm. ça et je pense que tamit peut-être aar loolu loolu la ñu loolu la ñu aar may léegi mhm. loolu noonu lépp boo ko xoolee euh, tak man bi ma déggee journal rappé mhm. c'était quelque chose de nouveau euh, quelque part bertuma moom moo ko initié ah waaw bertuma vraiment moo ngi mel nii xaw ma sama papa la xaw sama lan. kii c'est Mbaye Dieye Faye. ah bon waaw vraiment ah. buy génnee album bii di ñëw. Mm. sa sa sa waa ji. Ah. parce que uppukaay la def upp. <laughs> après ñu def song ma def bloqué def rythme rythme ah, li ciy topp suite logique la li ciy topp man du ma bett xaw ma ndax xam dégg nga su moo tax bro bi mu génnee journal rappé man bettu ma quoi hmm. léegi bëggoon nañ ñëw ci loolu rek justement ñi ñi ñuy clôturer voilà journal rappé dafa di concept boo xamante ne euh, xam nga fii liggéey naa fi ay cinq ans ou six ans mhm. uh-huh. donc dama doon defee émission léegi freestyle flow ensuite mu tudd rappé mhm. léegi saa yi ma doon pare sama émission après Ndiaye Dos moo doon ñëw def journal mhm. léegi dañ doon tasee si couloir bi nañuy tooñante quoi mu ne ko un jour il faut yow nga ñëw def émission rap man ma ñëw def émission man ma ñëw def journal après léegi idée bi c'était pourquoi pas ñu defandoo benn affaire. Mhm. ba j'avais pensé à jël générique Walfadjri yi. Mhm. def ko xam nga benn beat et cetera. Mhm. idée bi foofu la ju foofu la juddoo. parce que dama ne sama xel. Euh, public bi nga xamante ne moom mooy déglu rap. li si gën a bëri du déglu journal xam nga la lay déglu journal. Euh, revue de presse. te déglu revue de presse. tekkiwul ne déglu nga journal. actualité donc foofu la idée bi commencé. ma def loo xamante ne dañuy jéem a globaliser li nga xamante ne moom la ñu yenn saay kii ngay am position bi ngay am yow en tant que téléspectateur wala booy seetaan journal wala ngay euh, déglu revue de presse am na xalaat boo xamante ne bëggoon nga ñu génnee ko si Sénégal jamono bi ñu toll nii groupe de presse yi dañu nekk en guerre xam nañ ko loolu du lu bees. Mhm. groupe de presse bi groupe de presse bi buy def revue de presse am. Mhm. du si boole kële. Mhm. kële buy def mosam du si boole kële. mais man man miy déglu man miy déglu. la moo tax doo leen ma su man mi nga xamante ne man sama yoon newu ci. seen guerre seen biir la. donc c' pour cela que ñu ne il faut que ñu joxe suñu xalaatu bopp. xalaatu ki nga xamante ne ñun amuñu patron bu ñuy fay fin du mois amuñu leen lu ñuy xamante ne daf ñuy obligé pour ñu wax ci lii wala ñu wax ci lële mhm. journal rap foofu la juddoo euh, nee nañu cag gi benn raport mu nekk public enemy dafa yàgg wax ne euh, rap moom mooy seeneenu mbedd mi mhm. donc li ñuy def nii tey jii ni même journal rap bu amul woon. Hmm. boo dégloo émission wu b par hmm. exemple. wala nga déglu émission rap wala nga seetaan clip rap. Hmm. mais c' est comme si tu regardais l' actualité parce que dinañ wax ci politique. dinañ wax ci social. dinañ wax ci économie dinañ wax ci lépp. foofu Mass bu Black Diamond. waaw euh, mus na ma ci développé fii lu gàtt. Mass sama xarit Mass macha allah ñu koy bégee de passage nee na buñ demoon ba un million d'années ci kanam. Sénégal wala àdduna bi am yeneen nit yu ñëw. buñ jël seede yu bëri bañ cee xam mais bu ñu jëlee seede rappeur dinañ xam nit ñi jamono bi lii lañ doon dund eggali gis nga benn jamono pour nga xamoon Sénégal lu fi xew wala kan mooy buzz entre mhm. guillemets da ngay dugg car ci fa mhm. ëpp ci car <laughs> bi kooku moom moo doon buzz mhm. kooku moo xam actualité bi mais ñi ngi 2015 ñëpp am seen téléphone ñëpp a am Facebook ñëpp a am YouTube ñëpp a am whatever Twitter dañ ne léegi lii affaire bi mooy lan Sénégal pendant des années on a toujours été numéro un. Mhm. en tout cas en Afrique ci wàllu mhm. hip hop. lan lañ mën a def lu bees lu mën a jëlee turu Sénégal. Mhm. yóbbu ko ci beneen level. journal rappé bi noonu la juddoo donc Mass bu Black Diamond Mm-hmm. ñoom ñoo def lépp lu jëm ci vidéo bi euh, No Face Undercover mooy def musique bi euh, Pulse ñoom ñooy def euh, agence Pulse ñoom ñooy def lépp lu jëm ci promotion ci net bi mm-hmm. man ak Keyti ñun ñoo koy présenté ñoo koy co-présenté donc journal rappé c'est juste benn affaire bu pour ñun kese mm-hmm. mais pour Sénégal yëpp la pour képp koo xamante ne ñi doon déglu rap avant. Mhm. léegi ay paa lañ te déglootuñu rap. Mhm. mais dañ <laughs> dañ leen di jëlaat. moom it loolu loolu loolu moom jaaye yi dañ ci bëgg a laxasu waaw dañ ci bëgg a laxasu ah. man gisuma fi Sénégal ku fi dégloo gum at ba tolloo at ak Keres One wala nga tolloo at ak Awadi wala nga tolloo at ak ku mel ni yéen xam nga fi may waxee. Mm. am na ñoo xamante ne ni ñoo leen mag am ñu leen mag à l'international. ñi waxuma lan déglu mais dañuy nekk ci biir. su semaine ñaata at la am kooku jeune frère am mooy groupe yi njëkk am ay ay ay ay ay ay contrat Run DMC ay jeune frère lañ xam nga fi may waxee Rosema moom moo moo moo yore woon def jëm rek waxtaan dafa neex ba dafa waroon yaatu quoi dafa waroon xoolal warul jeex fu mu toll nii daal incha allah cooru ji léegi vraiment bëgg naa ci disponibilité bi. bëgg nañu waaw bëgg nañu. xam nga gis nga ci perdant. Ah, ca wa ma ma beneen yoon dinaa ci bàyyi xel non du du loolu de. déggoo ma ne xam nga lan la. ci pet. Ah. maa ngi waxtaan ak Soumane mais ci pet man maa ngi hip hop nation quoi waaw ndax dégg nga. <laughs> maa ngi joxe maa ngi focus si <laughs> na présence am si scène bi euh, présence Serigne bu extraordinaire la am dañu koy gis keroog maa ngi koy wax am ko ma naan ah yow moom Eh, dafa bëri feeling ah, xam nga ko. nice na ñi ngi ñi ngi ñi ngi bëggee kii bi. Euh, mooy li mu doon bëgg tënk rek sànq. mooy que ni euh, euh, hip hop moom. hip hop la rek game bi game bi la quoi. xam nga fi may waxee. Mm. nit yi nag dañuy fexe yéeg. yégal seen niveau quoi mm. artiste day def mm. buzz à travers ay hit track dil bi lool la am naa euh, ci ci invitation bi di leen xamal ne JTR mi ngi YouTube mm-hmm. donc c'est pas simplement buy jàll ci beneen chaîne de télé mais mm-hmm. mi ngi si YouTube maanaam journal rapide mm-hmm. boo leen demee YouTube boo leen defee journal rapide di ngeen ko gis journal rapide tamit yemul Sénégal c'est très important ñu wax ko parce que fexe nañu ñafe ak ay ONG bu mel ne aussi waa ak Panos ba jël journal rapide yóbbu ko Côte d'Ivoire. Mhm. ñun suñu bopp ñoo demal suñu bopp. Mhm. installé ko foofu jël ay nit former leen jàngal leen nan la ñuy defee comme ni ñuy def ba chaque semaine ñi ngi ñi ngi yónnee ñi ngi def ay journal rapide bëgg nañ dem tamit beneen dëkk bu mel ne euh, euh, Togo wala bokk Niger pour jëm fa def la même chose donc ça veut dire que benn commencement la rek te wax dëgg yàlla ñi ngi xam nga remercier képp koo xamante une fois cliquer YouTube seetaan journal rapide